yéen a kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Alaaji Mali Gakou Mamadou Aliou Dia ak Amadou Ba ñoom ñetti candidat yooyee ci nekk ci ñoom yaa ngi léew ab xale ci xët mu njëkk l'observateur xale yi ñuy xewal ci campagne bi xewet wi l'observateur xëy di jàngat mbir moomee mu tuddee enfantillage politique moom l'observateur teg na di ñu fàttali ci yeen candidat lañ koy faral di gis la leen ci dugal ba ci safaan yu mën a tukkee ci opération de sar mu ko ñuy def Abdou Khader Sanoxo bi di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu communication mi ngi wax ci biir l'observateur ne politiciens yi dañoo bëgg a wane ne dañoo set seeni loxo dafa set moo tax fu ñu toll ci seen yëngu-yëngu politique ñu yi xewal léegi moo di docteur Pape Sadio Thiam enseignant chercheur la ci wàllu communication politique nee na politiciens yi bëgg wane ne ay père famille lañu dañoo jege askan yi moo tax ku ci meeting baa ngay karawaan wala ngay amal ay yëngu-yëngu politique ko xëy ngi ñuy indil ay éclairage di leeral yu bàyyeekoo ci Mamadou Lamine Sow inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale mi nga xam ne ci biir l'observateur ne politicien bu ko ci def yaa ngi def lu safaana ak protéger xale mu dolli ci ne ab xale waree ko dugal mbaa ñu koy boole ci lenn politique ndax woote wuñu wootele wuñu ñii wut ñu leen wooteel di candidat yi ci élection présidentielle soleil national ak sud quotidien ñoo ngi Kaolack doon ab ëpp économique Alaaji Mali Gàkku moom nee na su faloo dafay négocier waat gi am ci wàllu napp gi ak ci wàllu pétrole gi Idrissa Seck moom yéeneem ci réew mi journal bi ne nañu bokk na ci indi coupe du monde football ci Sénégal Serigne Mboup mi jiite coalition ànd nawle ànd liggéey soleil national mi ngi ñuy wax ne wax na keroog ñetti mbir yi mu bëgg a sukkandiku ngir doxal Sénégal bés bu déggee excellence monsieur président ñetti kenn yi a yoree Sénégal moom candidat bi bi mi ngi ko tuddee daara ji waa réew mi daara ji nee na mooy ponk bi soxal wàllu éducation ak yar defaraat jikkoy tool bi mooy wàllu développement ak penc mi mooy ponk bi mu fas yéene sukkandiku ngir tabax ci réew mi ab état droit candidat beneen mu di Amadou Ba mi jiite coalition Benno Bokk Yaakaar lii quotidien mi ngi ñuy yeggee bilan à mi parcours bi ab directoire de campagne def semaine campagne bu njëkk moom Amadou Ba bu doon ab tool la yéene kay bi nee nañu gaay mi nee nañu fa Amadou Ba fekke Sidiki Kaba tapis rouge la ko lalal Amadou Ba jaar ca di pëllal di dem président conseil départemental bu Tamba di Mamadou Kassé ñëw moom it assurel ko mobilisation bu rëy Amadou Ba bàjjo bi moom ak ñaari doomi pendanaar yi mu di Jomaay Faye ak Ousmane Sonko mbaa duñu yegg ci kurpañante laata campagne bi di jeex enquête dina kay bind ci xëtamu njëkk ne defante ba door na ci diggante Amadou Ba ak Jomaay président Amadou Ba nee na ñoom Jomaay ay aventurier lañu ay cuune dara xamuñu lu ñu bëgg xamuñu fa taxaw Bassirou Jomaay Faye tontu ko ne àddunaam a Ba moo ubbi hostilité yi bés bi le jour gis ne ñu bokki bagage te xamalante ñooy waxalante candidat Bassirou Diomaye Faye nee na candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi su wóoloo boppam na def déclaration patrimoine taxaw wax ak askan wi wax leen li mu tooga duggaale ci teranga Amadou Ba nañu ñoo ngi seetaan ñaar ñi mu di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñuy bëgg a doon danger ci réew mi réew mi quotidien xëyee moom it ci xëtamu njëkk xeer yooyee Amadou Ba sànni ñoom Diomaye mu di danger lañu ci Sénégal CCPS commercial de plomberie du Sénégal DSL